amul lu fi xew te mosu fi xew loo fi gis mos a fi xew Matar Niang waaw je sais pas man xaw ma damay gis rek man franchement je ne peux pas dire diw ou diw mais dans la généralité je sais que daal il y a des plaintes xaw ma ñu ko accuser man xaw ma ko j'accuse personne mais su fekkee am na ku ko def yaa ngi koy tooñ parce que bu lu deful gis nga mu dem ci yoon bu demoon ci yoon tamit gis nga dañu ñaan ay ndimbal ne nañ ko kii mu bàyyi plainte bu yë puusoon plainte ki ko xawma ku manti doon ku ko manti def bu puusee plainte am tëdd kaso parce yoon bi nekk ci réew mi moom ngeen war a jubbanti yoon yu nekk ci réew mi tant que jubbanti ko xam nga xeex ak ngóor jigéen du ay wax do ay stigmatisé do ay dal ci kaw nit du diko ko dóor du noonu la dañu nek ci monde civilisé la révolution française de 1789 fa indi la déclaration des droits de l'homme mu inspiré la déclaration universelle des droits de l'homme des nations unies On am ay ak ak yelef yo yoo nations unies daf koy promulguer état yi bari diko signer signé ratifier ratifié Sénégal bokku ci ak ak yelef yooyu dafa jox dignité doomu aadama am lu muy charte am rew muy doxee indi démocratie indi yépp rew muy dox ci démocratie lépp lu ñu fay def di ko dogal dafa war a méngoo ak charte réew ma constitution ba loi ya fa nekk loi ya Sénégal dafa dàqul góor jigéen bu ñu bëggee xeex góor jigéen dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yéen ñi koy xeex li ngeen war a def mooy jóg taxaw pañe seen sëriñ si ngeen gëm ñu jóg taxaw jaamaarloo ak Macky Sall ñu voté une loi buy criminaliser góor jigéen mais bàyyi leen Wally Seck bàyyi leen góor jigéen ñi seen sëriñ si ngeen àndal ne ñoom ñooy fàddu réew mi ñooy àddu réew mi ñooy leen dugal àggale suba ànd ñu ñoom ci xeex bi taxaw naan diw si ngeen diw si ngeen si ngeen dafa yomb du signé kese sëñ Abdoulaye sëñ sëñ Cheikh ngay def Fatma bi mu fi nekkee Baye Niass Alaaji Abdou ñett ñii ku ne xam nañ leen ci xeex bi ñu doon xeex ci code familial bi bi ko Senghor bëgg a taxawal dañ ci taxaw publiquement di ci xeex di ci dox def ci seen alal dajale askan dajale mbooloo mi pour xamal leen ñun du ay sëriñ ñoo ñooñu du ay sëriñ ñoo ñoo suñu problème man contre ma sëriñ mais li ma contre mooy sëriñ boo xam ne rôle bi mu war a joué le rôle citoyen parce que sëriñ bi avant muy nekk sëriñ citoyen la ci réew mi la bokk dafa am lu mu war a taxawee bu réew mi nga dee jëm ci musiba dafa war a gën a taxaw bil bakkanam teg ko ci comme ni ko El Hadj Abdou defee woon ni ko ni ko sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma defee woon ni ko Bañes defee woon mais booba lañ fa mujj awatu fi ngeen di wax ay Wally Seck da ngeen koy yàpp ñi ngeen tuddee les régulateurs sociaux te man ma jàpp leen ñoo jàpp leen de dérégulateurs sociaux ce ne sont pas des régulateurs ñoom dañuy déréguler na ñoom dañuy yàq askan wi defaruñu askan wi ndax defar askan mooy góor jigéen ak yeneen yoon ñu bon ci askan yi ñoom ñu xam ko nekk ci réew mi xam bu baax li fi xew te koo ci laal sa kër maam tey jii ñoom sëriñ si koo ci laal kër maamam tey jii mu jóg taxaw fupp menacé sa kër wala mu dumale li ko ñor kër maamam moom kenn du ko tudd waaye liy defar askan yi li koy yàq yoonam nekku te doo ko ci dégg te te kenn ko wax mën naa koy wax li ma leen wax fii ngeen ko déggee su ngeen paree fi du ngeen ko dégg feneen bàyyi leen Wally Seck bàyyi leen góor jigéen ñi ñooñu dañ leen a protéger ay loi ñu leen protéger ku ci laal góor jigéen wala nga wax ko lenn bu la porté plainte ci kaso bi nga jëm kenn du la fekk kenn du la ketal man dimbaliwuma kenn oo ma gët man li may xeex ci kaw ci kaw réew bi toog ci kaw réew mi muy Macky Sall nga xam ne li ñuy xeex yépp moom moo ko ngem ca kaw góor jigéen yi ngeen wax ak yi nekk ci réew mi yàq réew mi yépp moom Macky Sall ci lu bon lay dox ak ku bon sëriñ si ànd ñoom di ko ñaanal ñu naan ko ay 20 mandat ñu naan ko bàyyi naa la Sëriñ Touba ñu ko dangay toogaat yi kenn xamul ñoom seen sëriñ si ñoo

duñu ko def duñu mas a génn di wax lii man maa leen ko wax te man xam naa sax duñu wax sëriñ ci ngeen di wax duñu wax kenn du ci wax ça je le dis sëriñ boo ci dégg mu wax rek xamal ne bokkul ci système bi koo ci dégg mu wax ci affaire góor jigéen publiquement di ko assumer di demander à ce ñu jël ci ay loi xamal ne kooku bokkul ci système bi kon waaye góor jigéen fan la jógee mi ngi jóge ci mbon mbon ko fu mu jóge mi ngi jóge ci nit ki am yaakaar ci yàlla bëgg yàlla bëgg ku ko sóoyee fii ak fële di xeeñtu yàlla bëgg yàlla gis la yow yaakaar na yow mën nga ko yóbbu ci yàlla mu jël la jox la boppam yaakaar ci yow nga war koo taxawu fii ci àddunaam nga war koo taxawu fële su fekkee mën naa nekk yooyu sax wóoruma fële moom dara wóoruma ci àllaaxira moom man dara wóoruma ci man xawma dafa nit taxawu nit man loolu ko mais comme yéen koy wax ma di ko répété mais man li ma gëm mooy mooy àllaaxira kenn ku ne yaa fa taxawul sa bopp àdduna nag nit mën na la fa taxaw mën ngaa jël sa àdduna nga a koy jox seen bopp àdduna ak àllaaxira nit mu yaakaar la nga ki nga jox sa bopp di nax nga am ci àdduna bi fii ay jafe-jafe ci ay jikko ay góor jigéen nekk ci biir réew mi di lambar lambar mu naqari la yow taalibe bi sa sëriñ taxaw la si sëriñ bi nga jox sa bopp àdduna ak àllaaxira bu la mënta fajal sa naqar góor jigéen ci Sénégal gii waaw sëriñ boobu yow ma xiyaam bu yàlla taxawee nga xam ne foofa kenn du wax kenn du wax sëriñ bi nga yaakaar yow ma xiyaam foo jëm ak moom nga jëm ak kooku ku la mënta liggéeyal fii say mbiru góor jigéen bu la naqari boo demee moom tase ak moom yow ma xiyaam bisu penc foo jëm fu kenn dul wax yàlla rek mooy wax ku fa wax yàlla mooy jox parole foo fu kenn dul wax naka la fa sëriñ di liggéeyanteel taalibe sëriñ boo xam ne fi ñëpp mën a waxee ku nekk mën faa wax moom sañu faa wax muy àdduna bi nga xam ne man sax maa ngi wax sëriñ bi moom ba léegi nangu cee wax te wax ngoo jigéen gi yéen ngeen jël seen bopp jox ko sëriñ bi di ko jox àddiya yaakaar ko àdduna ak alaxira yéen su ngeen moytuwul subhanallah léegi góor jigéen dañu am puissance xel moo leen di xeex ak mbooloo ak stratégie ak lobby moo leen di xeex mais du nit nek ci euh, facebook bi di lambar lambar yi wax góor jigeen kër kër di dagelo di wax nan way am xassam jikko yi mais yeen mouvement sam jikko yi mën leen sàmm jikko yi am ngeen mérite am ngeen jàmbaar li ngeen di def sur le plan principiel manam ci idée bi d'accord na ci yeen ànd na ci yeen jikko yi fuñu sam ko ci parfaitement d'accord avec vous di yeen encourager ci seen xex di rafetlu seen taxaway mais da ngeen ci neew doole du ngeen dem fenn mënu leen ko am ngeen bëgg-bëgg da ngeen ri mais mënu leen ko du ngeen dem li ngeen ma leen ko wax lu tax mën leen ko mooy yéen sénégalais yi gëmuñu leen kenn jébbaluwul ci yéen du kenn nekkul bi ci yéen sénégalais yi dañ leen faa bàyyi yéen ñi bëgg a sàmm jikko yi dem jox seen bopp ñi nga xam ne ñoom sàmmuñu jikko yi muy sëriñ si am nañu gisoo ci kenn ku génn di wax ci sàmm jikko yi ku ci woote sa bisu maam ngay woote say jumaa yooyu tabax say mbiri bopp ci nga nekk waaye nekkoo ci askan wi yéen yéen a jóg yéen sàmm jikko yi di wax ngir lépp lo xamne da fay lambo jikko askan wi yep xol len ci ku nek mourid ku nek khadir ku nek layen ku nek tiyan top toppatoo len yoy senegal ci boppam mo len ñor lolu c'est force c'est fondamental lolu ça m'intéresse man ci senegal ngeen di wax bu ngeen wax ci senegal nak da ngeen ci néew doole waye bu ngeen bëgge am doole rek dugg len ci ay kurel wax len ci mourid gi le ngeen am doole wala ngeen wax ci tiyan gi le wala layen bu ngeen duggee ci tarixa le ngeen am doole senegal motax du dem homosexuel yi dañu nek président dañu jité rew mi dañu yor rew mi di doxal parce que réew mi da du am rew

muy le système politico maraboutique bama ma wax ca njëlbéen ba ma commencé wax ba légui le système politico maraboutique top leen ma ba légui djogu ci du ngeen am mburu du ngeen am kër du ngeen am liggéey du ngeen faju du ngeen am yoon du ngeen dem du ngeen dikk du ngeen am liberté tant que ce système là ni ko français yi dajjee woon dajjewu leen ko jóg fipp taxaw dajj système bi le système politico maraboutique qui était le système xam nga euh, du du du du du royaume de Louis XVI et du clergé de l'église

gëm-gëm utu fa dara nit ku nekk li mu gëm ci xolam la nekk kooku sa diggante ak sa borom la kooku c'est une liaison étroite nit ki li mu fas ak li mu gëm digganteem ak yàlla foofu ngelaw xaju fa ngelaw xam nga ngelaw ngelaw ni mu sewee ngelaw xaju fa kooku du lu ñuy wax ci biti du lu ñuy yëkkati du lu ñuy wane kooku kenn ku nekk yaa koy téye sa bopp ñun li ñu waral pencoo di ko teg ci penc mi mooy li ñu bokk mu réew mi nu ñu koy defaree ba kenn ku ne mën ko dund waaye suñu ay pas-pas wurute feeñ ci yooyu tubaab bi loolu lañ def moo ñu koy république boo xam ne amul religion Emmanuel Macron su ko neexee nekk athée su ko neexee nekk musulman su ko neexee nekk catholique y a beaucoup de Français yoo xam ne fii ay catholiques lañ ñii ay juifs lañ ñii ay musulmans lañ mais dans la république il y a pas de religion alors que bi fi buur bi nekkee république bi dafa euh, monarchie bi dafa amoon religion. parce que buur bi dafa taxawoon taxawaayu taxawaay boo xam ne pour moom ànd ak église bi ñu ne église bi validé ko ne buur bi yàllaa ko yónni buur bi buuru yàlla yàllaa ko fi teg pour mu nekkal ci askan wi loolu yàllaa moo ko jaarale ci église bi église bi ñëw validé loolu nit ñi gëm ko. waa église bi taxaw ne ñoom tamit ñoom yàlla moo leen fi nekkal ñoom ñoo fi nekkal yàlla ñoom ñooy kilifa diine yi église bi ñu ne ñoom ñooy kilifa diine yi buur bi mu ne yàllaa ko yónni ñoom ñaar ñu ànd di laabisoo yor seen i jeeg di nappaati jeeg gi jël àll réew mi téye ko askan wi di bëgg a dee ci biir église bi nga xam ne ñeneen du ñu sëy ñu sëyante seen biir homosexualité lu ci bari ci biir église la jóge ñu sëyante seen biir tubaab bi homosexualité bi ñàkk sëy gi mooy abbé yeeg yooyu foofu la doon séyante seen biir foofu la homosexualité gën a lawe li nekk ci homosexualité ci église bi buñ la ko waxoon nga àdduna bi day tas la xewoon nag foofa la xewoon tey moo xew Sénégal Omar Cheikh Omar Diagne bind na livre la république des xaw ma lan des francs-maçons ngeen lire oh, a yo homosexuel wala seeg ngeen yëpp ay fii am na ay kilifa yoo xam tey boo tuddoon seen tur na homosexuel yi réew mi tas

ci lañ moom seen bopp ci tabax seen république boo xam ne c'est une république démocratique lay boo xam ne France bu nekk dafa am carte électeur bu voté jotee mu xool ko ko neex mu votel ko te vote boobu kenn du ko ko xañ du Aly Ngouille Ndiaye du Macky Sall danaan ko déedéet amoo droit voté ndax déedéet da day carte bi da koy fekk këram du du ma jëli carte bi de bu amee 18 ans dañuy defal carte bi poste ko ko moom day toog rek jot carte bi këram jour élection yi balaa def ñu yónnee ko ay bulletins yi mu war a voté candidat yëpp dañ ko yónnee këram ci enveloppe ne ko candidat yi ñoo am jour élection bi jour bi la sa kër ngay tànnee ki ngay voté def ko ci enveloppe dem voté ji loolu ci révolution bi la jógee révolution française bi kenn mënatu ci dellu ginnaaw